দেখলে কত amateurs yi mbokki jaxaaw fan sa club Boucar Ndour bu li TV ñoo ne le samedi 21 mai 2022 sele ba yoonu làmb ci jaxaaw siin lay doon maanaam amateur yépp a fa séenee daje ci jaxaaw siin àndandoog fan sa ba ñu amal leen grand gala de lutte di lutte traditionnelle mise ba di 1 million de francs CFA ñu ne bi la bés nag dañu ko jagleel seen soppe seen xarit muy Badara Ndiaye maire de Thiaré Dial gi nekk régisseur des bourses ñu jagleel ko bés bi fa séenee koo sargal ndax taxawaayam ci réew mi ndax njàmbaaram ndax ñépp nattable wuñ ne monsieur Badara Ndiaye liggéeykat bu kenn dul werante la ñu ne nag bu ñu yàggee ca bés ba animation ba dañu koo dénk mbayang lum mu nar a feggoog ma ma ngom nga xam ne ñaar fu ñu làng amateurs yi kontaan fu ñu làng mbër kontaan waaye fu ñu làng événement boobu duggee géey ñu ne nag dañ cee fas yéene décoré ancien gloire boo xam ne lu ne def na ko ci làmb ñu gën koo xam ci tombe seen kon bés baa ngoog le 21 mai 2022 ñu ànd ak fans club Boucar Ndour bu li TV wàcc ci jaxaw wàcc ak mbër ya def foofu lu amul fenn aja mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ñoo ngi fii ci biir bawal bawal yi Ahmed Lac nag la lañ toogal mu war a bëri le 28 mais yaakaar naa ne bokk ci combat yi nga xamante ni Momo production moom moo ko tëgg di Modou bay Fall yaakaar naa ne war na bëri ci bés boobu noonu mu nekk na boo xamante ni yaakaar naa ne amateurs yi danañ ci gis seen bopp ndax ay làmb amateur lañ leen andil moom nag mu mujjee def ay combat yu am am solo daan ki nga xamante ni moom mooy euh, Petit Lo daan Liis waaye safaraa ko mujjee daan nag loolu ma jaaxal da ngaa demoon bay neex le xalam dafa demoon bay neex bu mu ko dog Ahmed Lac Rose maa ngi lay bu baax a baax di la ziar. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci Yonent bi di sant suñu ñaari waajur Lamine waaw di nuyu waa équipe bi di nuyu Elimane Sarr suñu coach su ak village Sène waaw di nuyu waa Bawol gépp di nuyu waa Dakar waa Medina Raay ba plateau gépp di nuyu ñëpp waaw waaw. ci loo nekk Ahmed. waaw maa ngi sant yàlla comme si lii rek contact entraînement depuis koor ga ba léegi nag. dañuy woor mais bu guddi jotee buñ dogee dañuy ñëw si maara bi entraîné yenn saa yi ngoon gi sax dañuy dem ba din ya te dañuy woor combat bu ma jaral la nag maak Mbengue mbooro noonu la demee nag le 28 mai waaw combat bu ma jaral la parce que sama première spécialité dama koo jël def sama première combat. yow lan moo la dugal ci làmb. li ma dugal si làmb li ma dugal si làmb nag dafa bari trop parce que Bawol moom boo fa dëkkee suuf su Réfane dafa bari ay champion ñu ci ni ay Tapha ñoom Saalum Mbaye Diouf ay ñoom xam nga bawol moom boo fa dëkkee rek dangay ngay bëgg bëre bu dul dara da ngay bëgg bëre ñun mooy loolu loolu dañ koo judduwaale quoi noonu la demee. maanaam daal doomu bawol na mu ngi mel ni doomu lebu dem na géej. waaw doomu lebu dem na géej waaw noonu la demee waaye. nga bëre gum ñaata combat. waaw ma bëre cinq combat ma bëre quatre combat trois victoire benn défaite. kan nga daan. daan naa général numéro 2 daan Liss Ndiago daan Ameth Lo. général numéro 2 ban. benn bu écrit Doudou Bakassar. Hmm. écrit Doudou Bakassar waaw. teg ci Ameth Lo. waaw teg ci Liss Ndiago door a daan Ameth Lo ñëw Mbaye Diop safara daan ma. Hmm. waaw Grand Yoff mbooloo la ne. waaw kii sànq ma koy fàttali waaw. Grand Yoff moom bi koy daan moom ñëpp dañoo jàppoon ni. bu la jàppee làmb ji jeex nga ñëw def man mosuma bëre combat boo xamante ni damay ñëw ñu ne Amet Lagros amoon su la neexee nga laaj waa écrit bi combat bu ma si am dañu ma naan tey jii tey mu dee mais su ma ñëwee damay gën foo xam ne gaay yi fooguñu ko woon gars yi amateurs wala sa waa écrit amateurs yi waa écrit moom xam nañ ma xam nañ ne ñoom ki ñu yor moom gaynde la waaw man du ma du ma tiit du ma ragal barke Serigne tubaat te ñiy ànd ak man duñu tiit duñu ragal parce que damay attaqué damay damay duma damay daan Liss Ndiago moom ab sarax la woon daa mel ni wala da nga ko mën. Mohamed tey laa ko gën a mën soo ñu soo ñu joxoon ñaari seer ci fii ci géej gi du am benn jël. fukki combat juróom. 10 combat mais bëgguma di commenter. 15 15 laa wax waxuma 10 15. ma la wax 100 combat ay 15 ngay wax ak i 10 100 combat barki arxuraan maak moom si géej gi du am benn. tey jii nii nag sooy wax si ñoom ak booy yooyu ni mu demee nii dañuy foog ne sa xel daa nekk si ñoom wala dañ laa tanee dara man maa ngi sama yoon di dem ñoom ñu ci seen yoon. daan naa leen ñoom ñoo fi am lu ñu fi war a jël nañ dem rek côté boobu pare gu si ñoom man sama nden foofu laa ko sam soxlawu ma beneen adversaire bu dul côté boobu caaroy jamageen ñooñu kese laay bëreen su ma jógee même booro caaroy la de nee na xaw ma ak jamageen su ma jógee si moom maa yi fa yeneen booy yi fa nekk du ma leen may jam dinaa leen teg lu miti te kii dama koy duma daan ko bu arbitre bi suuf ñoom ba bëgg leen a teg lu miti non dañoo booy yooyu dañoo bari wax dañoo jël lam def ko affaire de wax te loolu du làmb lam da ngay ñëw wane say prof gars yi gis bàyyee la xel xam ne xale bii nii gars mu ngi si mais ñoom dañoo jël yow xam nga li ma lay wax bu baax ñoom ñëpp jama ngeen booy yi samay moroom nag nag ñoo tax may wax man ñeneen sama yoon nekkul si ñoom mais samay morom yi fa nekk dañoo jël lamb jiitale ko ay wax te affaire bi du noonu waaw. waa jàmm gën. waa jàmm gën booy yi dañoo bari wax ay nii nii naa nii naa yooyu amut. affaire yi ba nga fa am tax nga bëgg leen a yëg nga. fan. barke Serigne Touba taxaw seen digg bopp laay wallaay dama fay amaat victoire victoire dama ko fay amaat mbéng mbooro su arbitre bi soufflé na nga dégal sa bopp foo nekk dee ma déglu su arbitre bi na nga dégal sa bopp taxaw li nga waxoon ca signature ba ne dañ may dirise su arbitre bi soufflé dégalal sa bopp taxaw. non mbéng mbooro moom du ragal moom. du ragal man du ma bëreeg ragal man adversaire boo xamante ni daa ragal du ma bëreeg moom. billaahi du ma bëreeg tapet du ma bëreeg koo xamante ni nit ñi xamuñu ko. te bëgg combat bu damaa am coow bëgguma lu set damaa bëgg tey jii ñu ne amet tey mu dee ma ñëw genn fu garaaw. da nga bëgg na Ardo. bëgg damaa déggal ma la loolu mënu say ñàkk sax dem Ardo mënu cay ñàkk. foofu ñu dem Ardo dem ci médecin yi ñu xool ñu ñëwaat loolu mënul ñàkk. te ragaluñu ko. pare nga daal pare naa fépp. waa di woo waa Bawol di woo di woo waa Bawol ñi may jàppale Modou. Modou Baye Fall juumul de di woo Modou Modou Pentiir Modou. bés boobu noonu bëgg a woote nag. woote bu soobee yàlla naa la bàyyi nga woote. Lamine bi dama ko jël gaan waa damaa bëgg gaa yi jàppale ma dama ko jël ba pare def ko sama premier combat te damaa bëgg booy may topp yëpp kenn du jën kenn du jën billet. damaa bëgg ñu jëndal ma ay boloki billet gaan ma jox ko booy dem arène nationale feesal ko jàpp bëre daan ñib si moo tax foo nga may ma ma woo sama gaa yi. naa nga woote ba doyal. grand combat bi nag comme moom nga bëgg grand noo ko gisee caatu Daouda Fall Youssou Ndour. waaw caatu Daouda Fall champion la ndaanaanu bërekat la mais Youssou Ndour ndaanaan la mais ñoom ñaar daal ku ndam li jig daal yalla la ko yalla suñu borom defal mais caatu Daouda Fall mën naa bëre Youssou Ndour mën naa bëre combat bu neex la daal. kii jóge ci défaite kii jóge ci victoire kii jóge ci victoire kii jóge ci défaite. waaw ñaari victoire parce que moom was jàmbaar la mujj daan ak kan. ak ak ak kii waaw ak ak Vieux Dacia. waaw loolu yàlla na ko ko yàlla kii yàlla mu jig ko mais tamit ñoom ñaar daal ku victoire bi jig yàlla na la ko yàlla may waaw. mbay guy gi anamu. mbay guy gi mu ngi fi. yéen bokk écrit. ñoo bokk benn écrit muy sama grand di sama papa sama lépp kooku moo yor sama lépp mbay guy gi moomu ngay tudd noonu barke Serigne Touba su ma soxlaa si moom dara léegi su ma jogee entraînement du ma jaar sa ker ga nii ma taqe laay jaar expliqué ko mu defal ma ko ma dem tournée dem ñibbi. billaay combat nag. ah. am na combat de waaw ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yóbbuñu si ak jamak ak salaam kooku tiituñu si moom dara. armée lay bëree bu benn baraag xam nañ ko bu baax tapet la armée eh. barke Serigne Fallou armée du taxawee di bërek mbay guy gi mbay guy gi def ko lu garaaw li mu jógee barki de moo njaay loolu lépp del ñuy jàngal rek xam nañ lépp ni mu demee yàlla moo ko tuddee loolu moo tax. borom mété bi ngay wax de. déggoo li ma la wax mété googu noonu bu tiiree du am benn bal su yóbboo xam ne barke Serigne Touba Mbacke ñu ngi si kawam te du ñu bàyyi dara mu sedd billaay walaay. fu ko mbay guy gi fekk bu ko jàppee lam ji jeex armée ak mbay guy gi ngay taxale billaay walaay du benn. tëkkale moom kay ñu tëkkale seen bopp moo tax ñu boole. li ci fekk Sarko du ko ci fekk barke Serigne Sarko daa rëcc moo tax mu demee noonu. billaay walaay noonu la demee. aywa nan nga nar a ñëwee le 28 tàggul say mbokk nan nga a ñëwee le 28 li ma nara a ñëwee maa ngi woo ñoom Modou Modou Pentir du waaw. oto moo du ñor na ma Modou da siy jàpp chaque jour moo may jox reer tey nii su ma demee moo may jox reer laa la wax eh. lépp laay lekk. man bañuma dara cereeg mbaxal ak supp ak lépp ak yàpp waaw lu ma bëgg su ma ko waxee moodu del ma koy defal barki yàlla Modou pentiir ah. lu mu oto bu mu pentiirut baaxut soo yoree sa oto barke Serigne Touba boo ko yóbboo bu ko Modou pentiiree bu génnee dañuy xam borom oto yi dañuy ñëw si moom di ko xool fii mu ngi fii nii ci wetu police robos bi di sant sama boy yi raay ba ñoom alfa alfa Alpha da siy jàpp bu baax Kader Naar Afia Ndo Cargo ñoom Zak sama boy yëpp mafia bi yëpp ku ma limbul damaa juum yaa ngi dégg ñoom Abbas jib baabu gars yëpp ak Axma daa Axma daa daa peinture Axma moom itam day peinture peinture rek lay def waaw di sant Axma yot feeraay Axma maa ngi koy sant di ko gërëm xam nga di ko wax ne ko combat bi combat bi combat la. waaw di ko wax ne ko bu ñu jógee jàngiree fan yaa ma gën a xam bul bàyyi dara mu sedd mu jàpp si bu baax a baax di nuyu waa Bawol gépp yaa ma gën a xam di leen wax ne seen doom dafa xewle le 28. mais maak mbég mbooro bu jama gen ma leen di Assane Faye may ñaan may ñaan yàlla may ma ndam si kawam waaw loolu la demee la mbokki jaxaaw fan sa club Bukar Ndour bu Lutte TV ñoo ne le samedi 21 mai 2022 sele ba yoonu lamb ci jaxaaw siin lay doon maanaam amateur yépp a fa séenee daje ci jaxaaw siin àndandoog fan sa club ba ñu amal leen grand gala de lutte di lutte traditionnelle mise ba di 1 million de francs CFA ñu ne bi la bés nag dañu ko jagleel seen soppe seen xarit muy Badara Ndiaye maire de Thiaré gi nekk régisseur des bourses ñu jagleel ko bés bi fa séenee koo sargal ndax taxawaayam ci réew mi ndax njàmbaaram ndax ñépp nattable wuñ ne monsieur Badara Ndiaye liggéeykat bu werante la ñu ne nag bu ñu yàggee ca bés ba animation ba dañu ko dénk mbayang lum mu nar a feggoog Momo nga xam ne ñaari fu ñu làng amateurs yi kontaan fu ñu làng mbër kontaan waaye fu ñu làng événement boobu duggee géey ñu ne nag dañ cee fas yéene décoré ancien gloire boo xam ne lu ne def na ko ci làmb ñu gën ko xam ci tombé seen kon bés baa ngoog le 21 mai 2022 ñu ànd ak fans club Boucar Ndour bu li TV wàcc ci jaxaw wàcc ak mbër ya def foofu lu amul fet